simplement euh, épiloguer sur ça n'est-ce pas. alors euh, euh, ci FMI boobu sax la ñuy daal di dikk parce que gis nañu également comme ni ko waxee Moustapha Ba yaa gën a xeex à ce que subvention yi nga xamante ni moom la Sénégalais di sukkandiku à ce que ñu mën a subvenir à leurs besoins ñu bañ ko tegee maintenant su FMI boobu nga xamante ni jot nañu xibaar que ni pare na pour suspendre li nga xamante ni moom mooy prêt yi waroon dox ci digganteem ak réewum Sénégal jusqu'en juin 2025 est-ce que boobu la xibaar tey nekk na lu la bett gannaaw ba nga xamante ni ay chiffres jib na tukkee ci premier ministre Ousmane Sonko disant que dañu falsifié ay chiffres euh, des données économiques euh, déficit bi ak prêt entre autres lu ni mel nag tax na FMI daal di reculer est-ce que euh, jàpp nga ni en réalité lu baax la pour réewum Sénégal ak ci lot yi nga xamante ne moom lañ bon xam nga comme ñun dañu am premier ministre boo xam ne làmmiñ wi a ratax. maanaam li ñuy wax ci wolof ku rataxle la maanaam day wax rek et ce sont aujourd'hui ces conséquences que nous sommes en train de vivre euh, bi mu njëkkee wax loolu boo xoolee euh, am na cabinet de notation notation ay agence yoo xam ne dégradé nañu Sénégal parce que nag euh, c'est le premier ministre c'est ki nga xam ne moom mooy exécuter politique gu président de la république kooku moo wax malheureusement li mu wax wéeruwut fenn même bu fekkoon ne lu mu xam la lu mu waroon téyel boppam la parce que njaboot ku nekk am nga say mbooti biir yoo xam ne waruloo ko génne ci biti gis nga gis nga réew comme njaboot famille la rek yow mi ko jiite il faut nga yërëm ñi nga jiite yow mi ko jiite di nga am loolu naqari di nga am loola neex mais ñëpp sa njaboot lañu yow mi ko jiite di nga xam ba ca yow mi ko jiite di nga am information ci dara téyal ko sa bopp parce que boo ko génnee xam nga ne mun naa lor sa njaboot wala sa njaboot tas ba mu ko fi waxee on savait que forcément dina am ay conséquence et bi mu waxee ne dañuy yi chiffres yi ku mel ni man génn na ne ko waxoo dëgg pourquoi parce que boo demee ci ay document officiels Euh, am na rapport Cour des comptes bu exécution budgétaire deux mille dix neuf deux mille vingt et boo xam ne Cour des comptes moo ko publier man jàpp naa ne Cour des comptes lu mu certifié wax amatu ci am na benn euh, rapport de conformité bu deux mille vingt deux boo xam ne aussi Cour des comptes moo ko génne mm. sur euh, le poids de la dette c'est-à-dire sur sur le service de la dette jàpp naa ne Cour de comptes bu ci waxee keneen mënatu ci wax lu nit mun a jàpp et donc loolu laa jàpp kàddu Cour des comptes du ma ko tëkkale ak kàddu Ousmane Sonko nga xam ne lu mu la wax midi midi cinq wax ja weddiku la kon kooku mënuñu ko bàyyi xel maintenant euh, gouvernement bu Sénégal ci année deux mille vingt quatre bi dafa waroon lebi deux mille cent milliards deux mille cent trente huit milliards à près mais ces deux mille cent trente huit milliards assemblée nationale moo ko mayoon valider ko gouvernement bu Sénégal et xaalis bi FMI waroon joxe dafa bokkoon ci mobilisation de ressource yi ñu waroon am boo xoolee ñoom bi ñu fi toogee benn yoon le FMI décaissé. mujj gi dañu waroon def loi de finances rectificative LFR defuñu ko FMI génnewul xaalis bi daal di leen wax ne novembre ñu ñëwaat novembre tey FMI ne leen moom mu wax ne chiffres yi dañ ko maquillé mu ne FMI ne comme chiffres yi dañ ko maquillé te dañu war a xaar Cour des comptes certifié ko waaw léegi ñun nañu xaar ba Cour des comptes certifié ko loolu fii ak juin deux mille vingt cinq la kon mooy li may wax yenn saa yi di nga rattaxle wax ba wax loo warut wax. loo xam ne musiba la lay dikkal aussi simple ce sont les conséquences de des déclarations désastreuses du premier ministre Ousmane Sonko et il n'est pas son du exercice bu njëkk bu mu def euh, yàgg na ci et chaque fois situation bu demee nii la euh, la nit ñi di dund ak moom mhm. alors euh, ñu ngi jëm ci élection législative le 17 novembre 2024 Euh, yéen ngeen nekk euh, nga nekk candidat ci coalition sàmm sa kàddu mhm. euh, ci ñaari coalition yu ñu gën a dégg muy Pastef ak sàmm sa kàddu mhm. alors au la coalition naka ngeen di dundee bi mais euh, avec beaucoup de détermination et d'engagement parce que Sénégal jar na ko malheureusement bi ñuy commencé campagne bi moi j'étais en j'étais en prison maa ngi woon ci caso bi e tey lépp leer na ne moom premier ministre Ousmane Sonko mooy tëj mooy ubbi parce que dégg ngeen ko démb ci vidéo bi nee na moom premier ministre bu woowee ministre de la justice ne ko tëjal ma Abdou Khader mii Abdou Kha euh, euh, du fanaan biti parce que ministre de la justice dana ko exécuté moo ko waxal boppam mooy li may wax rataxle xam nga nit di nga def sax ngir nga suturaal sa bopp mais koo xam ne da ngay wax di fen bay fenal sa bopp c' est malheureux et c' est exactement ce qui est en de se passer la ma wax ñun ñëpp constaté nañ ko ça veut que bi ma nekkee kaso li ma yóbbu kaso li ma tentative bi ma njëkk yóbbu kaso moom la deuxième tentative bi ñu ma dugal kaso pendant douze jours encore moom la. pourtant il euh, moom ak ok moom la wax moom laa la wax. Mhm. président lu mu wax président dafa ne moo ko njëkk yëg ci Sénégalais yi weddiwul waxu Ousmane Sonko bàyyi leen ni ma wax waxu Ousmane Sonko. bàyyi leen chaque fois di ma ñëw di ma waxoo Ousmane Sonko parce que liy weddi wax am yéen xam ngeen ko da ngeen ko dul déglu du ngeen ko gëstu malheureusement réew mi Ousmane Sonko dafa am ay xar yoo xam ne ngeen baal ma ci kàddu gi lu mu wax noonu la dégg nga leen dégg ngeen leen ci réseaux sociaux yi noonu lañ koy waxee bu waxee du ñu gëstu du ñu xool du ñu sépargne du ñu seetlu lu mu wax noonu la mais bi mu waxee ne man biñ ma jàppee yëgu ko moom loolu la wax nee na sax président yëgu ko. mais président génn ne ne moom moo ko yëkk-yëkk ci Sénégalais yi diggante waxu Ousmane Sonko ak waxu président boo ci jàpp yow moi jàpp waxi Diomaye alors kon c'est juste pour vous dire que nit ki moo demee noonu xam nga yëpp sénégalais yi moo tax nga jàkkaarloog ñoom di màcc pastivalda naan pastivalda bii may màcc sama docteur moo ma ko bindal ordonnance parce que jàpp na ni ñi muy waxal nga baal ma ci kàddu gi ay xar lañ il n'a aucune considération pour les Sénégalais donc nit ñi ñoo war a jàkkaarloo nit ki moom si boppam xam ban façon ngi nit lañu am xam ban façon ngi nit ban façon ngi njiit la ñu am njiit bi dañu ko délégué pouvoir Sénégalais yi président yi lañu fal président Diomaye mi nga xam ne moom la ñu fal mu délégué ko pouvoir malheureusement tout le monde a compris aujourd'hui que euh, kersa la ci Diomaye mi jiite réew mi heureusement que euh, appel à la violence appel au meurtre appel à la vengeance yi nga xam ne def na ko jëme ko ci ñun euh, leaderu euh, sàmm sa kàddu heureusement que le président jomay a tapé sur la table le président Diomaye s'est véritablement imposé comme ni ma ko gisee ci benn journal tey daal di delloo si mbir yi wax ko ne ko il faut qu'on reste dans un état de droit et vous n'avez pas le droit vous en tant que premier ministre de dire certaines choses nit kooku la ñu am leen nit kooku mooy suñu premier ministre tey nit kooku moo la fi waxoon waxu six mil milliards nit kooku moo la waxoon ne la pétrole bi ñu ngi koy manq di ko jaayi bitim réew yàlla natt ko bari ko pétrole bi njëkk génn moom lañ ko jox nit kooku moo la waxoon ne ameel nañ la fi quatre cent mille ngay toog gisoo quatre cent mille tey mu dellu si at ne la amee nañ la neuf cent mille nit kooku moo ñëw jàkkaarloog Sénégalais yëpp ne leen am na compte bu am mille milliards te ñun ñëpp ñoo xam ne li muy wax du dëgg mais bis bu waxut lu du dëgg ku jóg ne ko waxoo dëgg sax nit ñi ne wuy wuy wuy wax ji dañ koy seral dañ koy woyafal dañ koy layam la man layam layaame ma waxuma jaare fen li ma ko bëgg a wax noonu laa ko koy waxee keroog bu waxee dëgg xam naa ne du gaaw am na sama benn xarit boo xam ne jabar yi dañu toog quoi ak euh, ak ay xaritam ku nekk naan moom maa ko gën a xam kii naan non man maa la ko gën a xam kii naan lan man man xam naa waa ji nii la mel nii la mel am ku ne ko non mais man buy wax dëgg xam naa bu waxul dëgg xam naa benn xarit bi jógee fee ne ko nga ne lan buy wax dëgg xam nga bu waxul dëgg xam nga mu ne ah, ma ne ko mais malheureusement kii kii musul wax dëgg kon yow xamoo ko alors je crois que caricature boobu ci moom foofu la ñu nekk ak moom c'est-à-dire musuñu wax yow mus nga gis benn yoon bu Ousmane Sonko accusé benn gor ci Sénégal indi preuve wax ma vous êtes des journalistes wax leen jàkkaarloo leen yéen ak sénégal yi ngeen wax ban accusation ngeen mus a gis soo ko accusé ko gor ci Sénégal ba pare daal di am ndam indi preuve du ngeen ma mus a tontu parce que amul façon nit boobu la am tey moo ñu jiite et léegi nag il faut ñu nangu ñun ne dañu juum parce que nit rek mooy juum yéene lañ amoon. ci lu joyanti réew mi ci lu jubbanti réew mi yéene lañ amoon ci lu xeex système yéene lañ amoon ci xeex euh, transhumance yéene lañ amoon ci fexe ba Sénégal mënal boppam yéene lañ amoon ci fexe ba alalu réew mi caisse noire bi ñuy jël di ko def di ci def lu leen neex ñu dindi ko ci réew mi